non si voilà. bon man question bi ma lay laaj day xaw am en rapport ak bi la suñ ko sa laaj mu jëm ci relation bi nga xam ni am na ci artistes si d'une manière générale. di commençant par les ténors jusqu'au seen seen génération. bi nga xam ni moom ngeen woon actuellement. parce que désormais je mm-hmm. pense que. à partir d'aujourd'hui wala à partir de la situation euh, causée par la Covid mhm. di ngeen prévoir au moins ngeen am benn association boo xamante ni association bu nickel lay doon boo xamante duutu leen xaar problème am rek ngeen door a dajaloo mhm. parce que on a constaté il faut qu'on se dise la vérité quoi mhm. su fekkee ni jàmm rek dafa am artistes yi kii ne jaar nii kii jaar nii ku nekk di wax man la nañu waxante dëgg léegi y a problème peut-être ngi jéem a soudé wu di jéem benn problème c'est normal mais est-ce que bàyyi ngeen xel bu lii yàlla génn leen si ak jàmm ngeen suude wu certes bon am leen benn xaar na yàlla yéen ngi bokk ndey bokk bàyyi mais dafa am beneen facette sur le plan professionnel laay wax ma waxuma individualité yi mais sur le plan professionnel is ko jotul ngeen bàyyi xel à partir d'aujourd'hui bu ngeen jógee ci lii ngeen suude wu dañu yéen xam ci association lay doon yéen a xam nu ngeen koy tuddee mais ngeen nekk comme euh, un seul homme pour que bu ngeen amee benn problème wala benn situation ngeen mën ko régler si ni ngeen ko bëggee réglé sans muy am yenn yenn tiraillement yi est-ce que hmm. bon <laughs> question bu ma neex la parce que loolu bu ngeen bëggoon ñu am yéen journalistes yi yéen a koy dem parce que tey pour ñu booloo tey bu ma tëjoo ci taxaw wax ci Demba gisee lu rafet. bu ko benn site publier beneen site du ko jël bu ma waxoon ci moom lu ñaaw site yëpp jël ko génnee ko toll nañ ci jamono joo xam ñun artistes yi journalistes yi lu ñaaw rek la ñuy génneel te alors que ñun ñoo yor image Sénégal da nga dem ci yeneen pays pays de l'Europe de l'Ouest journaliste bu toogal day jéem a jaay artiste su réewam pour mu mën a nekk international may ma may ma may ma may ma may ma non da nga posé question bàyyi ma tontu mais bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma tontu bàyyi ma tontu non non may ma tontu may ma tontu may ma tontu loolu ñu bàyyi ñu bàyyi question boobu keneen jël parce que je prends mes responsabilités mes engagements lu am dañuy xool li ko indi lu ko suuxat oh, comprendre nga tey image bu rafet ci Sénégal ñun ñëpp a war a jël ñu génnee ko ñu fekk kuy def lu bon yaa ngi dégg pas ñu tasaare ko pas ñu yàq ko yaa ngi dégg mais ñu xam ne kii c'est un sénégalais yaa ngi dégg kii sunu sunu frère la tey bu ñu ko defalee buñ bu ñu wanee lii image non seulement du moom la ñu yàq mais image Sénégal mooy yàq parce que tey mun naa wéet ak journaliste moo wax dara ci dem gisee mu ne ma xaaral du yàqamti jaay pour jël dugal ci poosam de maanaam xaaral lii kat rafetul image bi buñ ko génnee baaxul ci Sénégal parce que am na yeneen réew xool dañ naan damay seetaan euh, benn vidéo démb maa ngi koy wan Paco mii waa ji ne Côte d'Ivoire premier pays expec exportateur de xawma ma café ñee kii mais Sénégal premier pays exportateur de marabout non si mu jékki-jékki ne da ngay toog nga gis ci internet bi ne ñaari marabout ñu escroqué benn féticheur da ngay toog nga gis ci internet bi ñu ne Sénégal kii def na lii lu ñaaw wala mbokk sénégalais be na kii def ko lu ñaaw génnee ko kon tey ñun artistes yi da ngay jëkki jékki toog yëgaloo tiniloo ñu ne la ñaar ñi concurrence am na seen diggante pour jaay seen journal mais day am ci ñun de mais ma mais ma man mun naa exprimer wu parce que on est là mun nañ nekk fii maag yow bu suba ngay wax ma lay tontu mais sama ku nekk sa bàmmeel nga taxaw su ma dee ak sama bàmmeel dafa am loo xam ne dafa dafa jiitu ci Sénégal ñun ñëpp fii lañ ko fekk muy guerre boobu te journaliste mooy loo xam ni dafa war di defar moom ñun bu ñu xamee yéen la ñun bu ñu bëggee yéen la ñun bu ñu nawee rek yéen la billaahi wallaahi animateur journaliste bu Sénégal rafetee ñoom la bu Sénégal ñaawee ñoom la bu Macky baaxee ñoom la bu Macky bonee ñoom la Ablaye Wade keneen ak kenn waxi nopp parce que am tax yéen a communication bi yéen a yor image bi parce tey sànq ba léegi ñu ngi posé benn question est-ce que yëg yëglu nañoo mag ñi déjà foofu bu ñu yoree beneen xel rek wala mag ñi tamit du du ñëpp du ñëpp am intelligence ku kii fee lay déggee kii fee lay déggee polémique day am la moo tax ngeen jëw yeneen artistes yi ñëwul polémique day am billaahi wallaahi bu ngeen fi nekkoon kenn rek ñëwoon ñu wax li ñuy wax biir na ma ni bu génnee dina leen ko jox yéen ñëpp ngeen dugalaat ko soxlawuloon ñëpp di ñëw kenn rek bu ñëwoon baax na. parce que ñun ñëpp on est une famille artistes yi bu fi kenn ñëwee rek baax na parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn baat bi problème bi du artiste bi ñëwul du kii ñëwul du problème bi ñun suñu biir problème bi mooy lan la ñuy jox suñu njaboot ñu lekk mooy suñu problème fi mu ne nii jaruñu fi indi beneen problème wala beneen polémique li fi gën rek mooy rafetal ko ñi ciy jot jot ci parce que ñi ñu war a déglu bu ñu gisee ni ñun suñu biir y problème dañ naan dañu régler suñu problème ba pare door a ñëw mais amuñu benn problème on est une famille ñun artistes yi comprendre nga te ci tànk yooyu la ñu nekk di dox pour que lu lépp lu fiy ñaaw ñu rafetal ko du dëgg demba bi ñu bi mu ñëwee gis ngeen jàmm ju ñu am caat sekk gis ngeen jàmm ju ñu am keneen ak keneen jàmm jàmm lañ élage bu mu fi tudd élage suri baa kayitalu tudd ma tudd élage suri baa ku yaatu ñu tuddee ñu sunu màggu papa musique mooy loo xam ne ku nekk da nga am njaboot kenn amul jot mais bu ñu gisantee on est benn lañu waaw mais encore une fois journaliste yi ma leen di ñaan ngir jëmmi Seydina Mouhamed maa ngi koy ñaan ci sama xol image Sénégal lañu yor bu ñu fekkee Soriba sax mu juum nañ ko rafetal demb mu juum nañ ko rafetal parce que du ñun rek de mais am na ñu leen tiim ñoo xam yeneen dëkk yoo xam ne ñu ñu tiim te pour ñu jaay ñu ñun ñu yéen rekk ñu mën a jaay voilà. loolu la woon. non s'il vous plaît. waaw s'il vous plaît. waaw waaw léegi. waaw attends attends s'il vous plaît may leen ma may leen ma may leen ma waaw may leen ma léegi. Euh, je pense que aujourd'hui. waaw mais waaw mais ñu déglu. non non non on va. gars yi voilà on va ouvrir sur les questions. on va venir sur les questions on va on va venir sur les questions. on revient non non non mais gars yi tamit. mooy conférence de presse pour que soirée amaat. dañu ñëw pour. non non non. objectif bi tey mooy pour que ñoom ñu mën a jouer ak soirée. donc nañu nañu nañu dem foofu. on va mais s'il vous plaît mais s'il vous plaît. est bu gis bu ñu mayee rek bu wax ñu benn wax bu gàtt rek la wax que ñu bàyyi la ngay yegg. on continue dans le sens. waaw ça xanaa bëggoon def aujourd'hui exactement cest à aujourd'hui on a fait un appel à un point de presse. point de presse bi wax nañ depuis le départ yéen yaa leen ma wax ne ma nañu camper débat bi pour que ñu mun a développer. je pense que aujourd'hui dès qu'on sort même si que artiste lépp artiste la des qu'on sort du sujet dafay compliqué te aussi warul yàgg. kenn ku ci nekk tey di nga dem traiter sa information rapidement pour dugal ko c'est ça moom mooy moom mooy moom mooy efficacité aussi. il faut il faut ngeen joxe parole parce que. yow yaay taxaw waaw mais xam nga xam nga man aussi dama nekk man ñi ma xam professionnellement ñi ma xam. man bëgguma di xëccoo ak nit juste comme ça. bu dee damay waxtaan ak nit rek damay bëgg ñu coordonné benn affaire moo am mooy on a on a une difficulté bu ñuy partagé na ku nekk jël parole ñu dóor ko ñu ñu yeggali maximum 10 minutes 15 minutes ñu dóor li ñuy dóor léegi benn question moo amoon nañ bàyyi kay mu poser question bi mais on reste sur le sujet et après on termine parce que kenn ku ci ne gis nga boo leen xoolee information yi ngeen gën a bëgg am ngeen ko ñu def question bi ñu jël ñu dem. ñun ay journaliste la journaliste la ñu ay animatrice encore une fois may préciser bu baax. Mhm. ñëw ñu fi pour polémiquer wala créer buzz ko di ko teg si télé. yaa ma envoyé message ne ma ñii dañoo am lu ñuy wax pour ñu dimbali leen pour seen problème mën a réglé. gëm naa ne journaliste bi bu ñu si nekkutoon doo ñu woo bu ñu leen amalutoon njëriñ doo ñu woo wala nga message bi dañu ñëw activité bi. Mhm. na ko dem feneen. Mhm. mais moom gis nga euh, activité bii nii. Mhm. du pour loolu. Mhm. ku journaliste waxal lu la war a waxal. Mhm. demal ba si moom nga lijjanti ko ak kooku personnellement. ñuy def ba réorganiser waat seen ay soirée par rapport ak euh, mesures yi euh, ministre de l' intérieur jël. inconfront su ko neexee nag mu wax lu ko neex mais fii du place loolu mënoon nañ ko si fekk si nag ñu tontu ko si loolu mais c' pas important et c' pas le sujet sama dernière question rek lenn la rek mooy est am nañ ay alternatives yu ñuy teg. au cas où seen ay soxla kenn fajul leen parce que mënoo toog ne gouverneur nañu may nañu may am na ñoo xamante ñu ngi dem ci télé def seen ay soirée ñii ñu ngi utiliser buñ ko xeeb réseaux sociaux yi c'est des moyens yoo xamante ne nga fa liggéey pour am li nga bëgg loolu rek mooy sama question. ok ma ñëw juste pour benn résumé. aujourd'hui gis nga artistes yi waaw non après da léegi léegi taf taf yéen ak artistes yi yéen yaa leen fàq gis nga aujourd'hui vous vous incompréhension day am mais vous vous retrouvez toujours li leen wax moo nekk. on a toujours été depuis la nuit des temps depuis avant même presse écrite di am la presse avant la presse en ligne di am la presse écrite a toujours été là-bas on a toujours travaillé ensemble dans les dossiers même d'artistes le dossier de presse fait partie du dossier le plus important ñun on est des managers professionnels quand je dis professionnel mooy loolu lañ dem jàngi ñi et on l'a fait depuis ans aujourd'hui fi ñu toll nii donc xam nañ lan peut-être c'est il a relayé des faits yoo xam ne ça n'a rien à voir ak li ñuy wax mais il a amené juste benn benn c'est juste c'était pour dire que aujourd'hui moom mu fi nekk moom bu waxee ci sujet bi mel na ni wax naa ñëpp c'était ça le qui est important loolu la ñu war a retenir parce que moom ce qu'il voulait dire c'était juste ça dañu wan dëgg ce qu'il voulait dire mooy que gars nekkuñu fi mais moom bu waxee waxal na ñëpp c'était ça le sens c'était ça le sens de la c'était ça le sens de la réponse donc loolu solo maintenant li nga xam ne moom moo am solo mooy aujourd'hui on a une activité activité bi xam nañ lan la on va essayer de de voir s'il y a des questions on prend ces questions l'essentiel mooy que ñoom ils se sont regroupés avant ça waxtaan nañ ko plusieurs fois peut-être tey ñenn ñi nekkuñu fi mais ils ont parlé pour tout le monde li am solo mooy aujourd'hui ñoom ñoom ñu ngi fi ci lan affaire nan la ñuy def ba activité yi ñu reprendre c'est ça qui après bu ko reprendre bon ngeen baal ma ngeen baal ma xam naa ni xam naa ni bon peut-être déggante wuñu maa ngi jégalu ñëpp grand maa ngi lay jégalu bu baax parce que yaakaar naa déggu leen fi ma waxee dafa wax dama posé question mu ne ko yaakaar naa ne caat tontu na ci sànq parce que ñun ñëpp benn lañ boo ko xoolee xoolee journaliste yëpp benn lañ boo ci wokkee kenn wokk nga ñëpp dama ne journaliste moo yor image yu Sénégal dama ne tey bu ma tëjoon ak moom ma wax ci Tapha mii lu ñaaw war na maa mën a jubbanti kon jàpp ma ni problème am na ci ñun artistes jàpp ma ni problème am na feneen ak feneen maa ngi jégalu ñëpp liñ fi indi woon loolu la xam nga et ñun ñëpp ay ndaw lañ te ñëppay jum ku ci sentir nag nii dama la offensé maa ngi ci jégalu bu ñëkk juguma accuser journaliste yi dama wax une général ñun ñun ñëpp benn lañ. ñu xool li rafet rek ñu génnee ko li fi indi mooy ñu ñaan. ça va sëriñ Ba. dama lay jox benn mhm. Mhm. a appris l'éthique et la déontologie. Mhm. xam nañ ni a gérer information. am nañ mooy joxe benn source. dafa am lu am dama bëgg nga xam ko bu baax. xaw ma xam nga ko wala xamoo. mooy gis nga seen polémique yi am yëpp journaliste n'a rien à voir dedans. il faut ça que ça soit clair. c'est mhm. entre vos fans. il faut que loolu ngeen xam ko. Mhm. tey fans su Soriba dañuy ñëw ni ko yaa gën a aay Thiat Seck yaa gën yaa fi nekk yaa kii ñoom ñooy wala ñu kii. à partir de là ñun. Mhm. mais journaliste loolu mooy du noonu. ñun foofu lañ ñaari journaliste du sos de du sos. parce que yow nii tey nii su ma ñëwoon bindal la benn affaire boo xamante ni nekkul. mais da nga may da nga may porte plainte. ñi ma fan nga jëli source bi ak fan nga ko kiiyee. am na wala amul ñoo bokk lu ñuy wax. dama ne. boo ma fekkoon ci lu ñaaw. non dama lay leer ah? bu ma dagg non déglu mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. suñu ñëwee pour jël point de presse. Mm-hmm. jarul ngeen si journaliste yi dañuy dañuy yéen problème bi ngeen mën di am ah. c'est entre vos fans. fans yi ñoo ñoo leen di jaxase. journaliste bi koy jël relaté ko. c'est aussi simple que dëgg la waaw d'accord kon bu grand terminal la maa ngi jégalu ah. voilà jégalu El Hadj ah waaw d' accord léegi El Hadj on on on fait un résumé rapidement ñu tëj sur la minute là là là on essaie ñu tëj ko après on avance on kii te je pense que vous vous êtes compris incompréhension bi souligné ngeen ko on avance à la fin parce que il faut que ñu terminer dem kii on prend la dernière question ici.